waale waa hôpital Youssou Mbargane bu baax a baax ñoom itam yooyu la ñuy def ak yeneen euh, alors euh, gomi sa gaañe fara ba ca pare bàyyi ma yeggali ko da ko ciy boole dégg d'accord na nga def maa ngi fi rek léegi yow ñu dugg ci jeux yi war a am ci atum 2020 bi Sénégal ba tey benn qualification la ñu am waaw benn qualification boobu euh, lañu ñu am ba teex tax na tey jii qualification Jeux olympiques jafe nañu lool. qualification jafe nañu lool. Euh, li tax rek mooy lenn lenn rek mooy que gis nga nit buñ la joxee mbir wala boo yoree mbir da nga war a toog euh, nga def ay maanaam jàngat. Mm. du loolu mooy analise analyser la situation. jàngat mbir mi <clears throat> da ngay jàngat mbir mi lan moo tax tey jii ñun ñu am problème pour qualifier ñu ngi ci deux mille ñu ngi ci deux mille vingt deux mille seize invitation deux mille douze la ñu gëj a am ay qualification parce que boobu la équipe olympique bi Aliou Cissé. yóbbu woon boobu la mais 2016 ñu am nag ay invitation à Rio 2020 mu ngi nii boo mootul invitation la ñuy demee te sax moo gën a leer moo gën a leer que qualification. te tàmmuñu ko tamit. ba tax fu mu nekk nii xam nga. xam nga euh, ñii di faral euh, Macky nit da nga koy wax dëgg quelque que soit bu nekkee sa nit da koy wax dëgg Macky Sall est venu au pouvoir en 2012 2012 bi Macky Sall di ñëw dafa fekk Sénégal euh, dem Jeux olympiques qualifié am ay qualification kon tey jii moom ak i boobu maanaam bu yokkul dafa wax yem ci loolu waaw wala déet. li mu fi fekk. maintenir ko. tey 2012 li ñu fa amoon ci qualification mm, Macky Sall dafa waroon liggéey liggéey loo xam ne moo mooy nguuram liggéey loo xam ne au moins euh, qualification boobu euh, bu ñu bu ñu fay bu ñu mu bu ñu ko mën paas sax ñu yem foofu mais 2016 ñu chuté mu ngi nii dañuy chuté. te billahi 2024 dañuy gën a chuté 2030 dañuy gën a chuté man maa ngi ko wax. régression billahi nul nekk doo dégg kaay dama lay wax benn affaire boo xam ne moo am processus dafa am processus loo laaj dans la vie processus la yow da nga am. pour dara jaar ci processus ba jaar ba ñoo nekk journaliste waaw wala déet. waaw dëgg la processus dafa am. kon nag dans tout chose lépp looy def ci àdduna day am processus. mane ne tey jii bu fekkoon ne ñoom liggéey nañu ci wàllu sport jox ak sport li sport di laaj parce que léegi sport nekkatul affaire wu amateurisme. affaire wu haut niveau la. Mhm. bu doon liggéey nañ ko maanaam ñu liggéey ko. kon tey jii jàppal 2012 ba 2020 c'est sept ans et dañu ne processus su qualification wu maanaam Jeux olympiques processus bi ça fait xam ñaat la six ans la six ans la kon en 2019 waroon nañu am ay athlètes yoo xam ne prêt c'est pour euh, yoo xam ne par ah wax waxuma jël médaille mais qualification parce que jël médaille processus bi Amadou Diaba war na ko ñëpp c'est dix ans c'est dix ans kon nag léegi yow six ans mooy qualification dix ans mooy médaille Amadou Diaba 88 la jël 88 moom la jël euh, euh, moom la jël médaille bi 88 moins 4 en 84 qualifié woon na Jeux olympiques te mu ngoon ci processus bi dafa qualifié déglu bu baax de dafa qualifié Jeux olympiques 84 mu ngi ci qualification bi 88 mu ñëw jël médaille xoolal xoolal rek. 4 ans nii de. 4 ans dafa ñëw 4 ans processus bi dafa commencé en 1980 le processus bi commencé mu dem. moom 84 mu qualifié 88 bu jël médaille donc c' est la même chose ak nii bu fekkoon ne 2012 maanaam bi ñu ñëwee bi nguuru Sénégal ñëwee jël sport ne daal dëgg-dëgg xaaral ma def ko liggéey ko def ci dara kon tey jii ñun ñi ci 2020 euh, bi dañ doon am ay qualifié ba sax di prétendre sax ab final. Mm. parce que final ngay dikkee parce que loo gis am yoon. da ngay da commencement qualification. Mm-hmm. après qualification finale après finale titre médaille. noonu la noonu lañ koy noonu lañ koy kiiyee gis nga. mais boo eh. fàtte que ni avant 2012 euh, amoon nañu stade Léopold Sédar Senghor fu ñuy entraîner mm-hmm. piste d' entraînement. waaye bi ñu Matar jëlee ministère bi depuis 2014 ba léegi réfection la ñu nekk. Mm-hmm. deux mois trois mois ñu ne la ñuy réfectionner stade bi ba léegi mi ngi noonu. da nga wax loo xam ne moo am xuddoos. je confirme mon euh, commis. moi je remonte un peu l'histoire avec des faits. suñu équipe bu 86. on avait une équipe très performante. avec les Roger Mendy les Thierno les Omar Gueye Sène ak yooyu ak ñoom Cheikh Seck. équipe la woon bu ñu planifié woon avec Autofisser depuis 1982. doo de 1982 à 86 on a bati puisque 82 86 zone 2 bi nekk fi dañoo dem ba kenn dootul xëccoog lu zone 2 ku ñëw lu dóor la jël coupe bi. mooy tournoi Amine Carter 86 ñu dem def une très bonne prestation def une petite erreur ñu éliminé l'équipe de 2002 da ngeen di fàttali également c'était un processus une planification. Nigeria avant avant le Mali bi mu demee Nigeria avec les Fadiga avec les El Hadj mu def fa une très bonne prestation et l'année d'après on est parti jusqu'en finale et nous éliminons au tir au but par le Cameroun te Cameroun boobu c'était une foudre de guerre damay déggal jege foofu ñu dem coupe du monde on était encore dans la même dynamique peut-être. E Mais depuis lors, on n'a que des générations spontanées. C'est-à-dire rassembler à une alors qu'une équipe, ce n'est pas un club. Une équipe n'est pas un club. Un club a une Alors qu'une équipe, c'est des éléments qui s'entendent, c'est des éléments qui sont soudés, c'est des éléments qui sont complémentaires. chaque joueur nag am loo xam ne daf ko ci indi milieu de terrain bi dafa am un rôle la défense dafa am un rôle l'attaque dafa am un rôle kon Cheikh Tidiane Gomis deful politique la muy wax. suñ demee nag ba nga xamante ne bii non kii ku xamante nan bu baax a baax. c'est c'est un grand gardien de but. ah jaajëf waay. il faut que ngay wax comme ça gars yi di. c'est un grand gardien de but. Euh, il faut que ngay docteur Ba il faut que ngay wax comme ça gars yi di xam. parce que est parce que dañu defe ne rek. Cheikh Tidiane Gomis stade Amadou Barry xam na ko bu baax. <laughs> allahu akbar. ndax sa loxo. mais mais nag mais nag ay ASC Manko rek la ragaloon. <laughs> xam nga gars dañu def ne Cheikh Tidiane day wax nii rek ci football. wala ci sport nangam dama cee juddu boobu. Hmm. man dama cee juddu. dama dama dama toog fenn nu lay jëw. Hmm. yow ak le reporter sportif de RDV. waaw. ne vous êtes les du sport sénégalais. <laughs> du caaxaan. <laughs> te ki ma ko wax mu ngi koy dégg. dégg euh, léegi mu gis nga dama wax benn wax 2002. ñu bëri dañuy yaakaar ne que 2002 liggéeyu Bruno Metsu la. Hmm. Bruno Metsu daf ko àggali. Otto hmm. Pfister. non Peter Schnittger Peter Schnittger waaw. c' était l' allemand Peter Schnittger. Hmm. bi ñuy jëlee gars yi kan moo ko indi. c' est maître Abba Talib Gueye. alors président fédération bu euh, bu football xam lan la toog. dafa toog ñu ñuy éliminer dañuy éliminer dañuy mu xool allemand commande allemand yi efficace mu ne non mais ñun dañu am coopération ak Fran ci euh, ak allemand yi waaw mais am na benn allemand bu fi nekk entraîneur la defu fi dara mu ngi toog rek dañ ko fi indi rek mu ngi nekk ci coopération bi toog nii rek non non mu ne ministère des sports wax nga ko kooku moom mu jël nekk équipe nationale. Mm-hmm. Peter Sénégal liggéey na commencé di liggéey équipe bi première qualification moo doon 2000 au Nigéria. mu dem fa quart de finale groupe boobu c' est là où le groupe est né 2002 foofu la juddoo kon loo gis processus la waaye leen ñun ñu ngi toog tey jii voilà aujourd'hui le débat gis nga euh, Khoudous gis nga tànk aujourd'hui on ne on ne dit pas du ñu euh, gis nga li ñuy wax ni yëpp ay waxu caaxaan la li ñuy wax ni yëpp ay wax gis nga gis Euh, euh, ñu ci mel ni nga dirigeant yi amuñu fi benn njëriñ ba tax na dañuy indi benn débat dañ lay dañ divertir maanaam li nga xam ne moom mooy moom mooy kii bi moom mooy euh, problème bi dëgg <coughs> dañuy dem wax leneen nga topp ci problème boobu ngeen fàtte li nga xam ne moo fi nekk ñun journalistes yi dañuy topp dirigeant yi di dem di wax ay wax au lieu que ñu wax li nga xam ne moo am ou bien état bi nguur gi. Euh, ministre bi ou bien tamit ñeneen ñi au lieu que euh, ñoom dañuy ñëw dañ lay yóbbu ci beneen débat alors le débat est là le débat mooy aujourd'hui aujourd'hui c'est le sportif en tant que tel sportif bi ci boppam en tant que tel le véritable problème xam nga tey jii euh, bu may wax nii ma je le dis au nee naa ko ma ne ko le sportif condition sportive bi on ne peut pas comme ni ko tubaab bi waxee on ne peut pas demander à la plus belle euh, femme au monde ce qu'elle n'a pas mun nekk nit boo koy laaj day fekk mu nekk fii waaye yow nga bëgg a jël euh, ab sportif boo xam ne buy réeree ndambe lay réeree peinton lay euh, lay moom lay ndékkee <coughs> dégg nga nga naan ko yow demal qualifié pour jël jëli médaille loolu du caaxaan xam nga caaxaan la moment boo xam ne yow mi moom ki muy xëccool médaille bi wala ki muy xëccool qualification kooku dégg nga moom mu ngi am benn salaire gouvernement am jox na ko benn salaire xam nga ñaata salaire wu cinq cinq millions yow mi amuloo salaire amoo dara nga naan leen a yore nga kii mérité ko nañu waxante dëgg voilà foofu rek dóor nañ ko mais dafa am souvent lu muy wax. ci sport bi. mais ça affecte tous les secteurs. souvent dama koy dégg muy naan le sport n'a pas de politique. Mm-hmm. politique sportive amul Sénégal. Mm-hmm. te gis nga lépp lu amul politique en termes d'orientation. ki mm-hmm. ne pas bien planifié est voué à l'échec. mooy li ma doon wax sànq. génération spontanée lay doon. planification lu am solo mais une planification aussi dafa war a reposer wu sur des orientations qui sont claires secteur bu nekk dafa war a am lu ñuy tuddee une politique mais malheureusement c'est là où le bas blesse pas mal de secteurs ne dispose pas de politique. parce que tout simplement tamit suñu suñu sport bi. ñi fay nekk ce sont des politiques. c'est c'est un c'est c'est malheureusement aussi la la réalité tey booy jëlee le ministre Matar Ba. son avenir politique moo gën a amal solo que li nga xamante ne moom mooy avenir politique sport bi. c'est vrai loolu que parce que cérémonie dajale. woonewu sargal mais préparer les sportifs ce n'est pas une priorité pour eux. et c'est ça et, et c'est la clé de la réussite en sport ah, ah. la clé du développement sportif mm. mooy xam nga lan la mooy le sportif man man man xam nga man bu gars yi di toog di wax fépp man man man je parle du sportif condition sportive bi parce que nit mënul bàyyi mm. mu ne moom sport lay def métier mm. ne lii rek la ki bàyyi lépp te kooku mënu ci lekk mënu ci am lu muy lekk ci loo ci euh, ci loolu muy yëngutu yow yaa ngi yaa ngi lan ci journalisme yaa ngi ciy lekk yaa ngi ciy suturlu waaye le sportif bi nga xam ne moom mu ngi toog dégg nga bu yeewoo mu nga ca terrain bu añee ba pare delluwaat na ca terrain bu bu bu weekend bi mu nga ca stade ya mais kooku yow mii amul lu muy lekk nga bëgg kooku mu gañal la tey jii sunu équipe nationale football bu doon rek ci lu koy rek la duñ qualifié fenn parce que condition yi nga xam ne ñoom Sadio ñoo ko nekk moo tax ñu am qualification bii. waaw wala qualification bii ñuy am nii parce que condition yooyu ñu nekk ay Sadio Mané ay Koulibaly ay Gana Gueye condition yooyu leen club yi teg loolu mooy condition de performance. ci condition yooyu sax laa bëggoon ñëw coach parce que sànq yaa ngi wax que jamono jii nii benn athlète bu qualifié la ñu am muy. Euh, tennis de table waa tennis de table. voilà léegi sax xaw ma fu mu jugee. Ah. xaw ma sax fu mu jugee. kon kañ la ma la bëggoon laaj. kenn xamu ko fi min neexi kenn xamu ko fi. man kañ ma man maa ngi ci boobu atta man ma euh, euh, xoolal bi mu génnee sax gars yi dañu naan ah mujj ci fi mu nekkoon. Euh, ñun sportif ñun journal ñu ngi ne ah waa kii man de xaw ma fu mu nekkoon. kon kay man la ma la man xaw ma nekk la kii xaw ma ne. waaw <laughs> man la bëggoon laaj parcours am ba mu ba mu. doo dégg li ma la wax li ma la wax man nii doo dégg. man laaj naa ko sama ay naataango journaliste. Mm-hmm. ñu ne ah booy ñun daal jot nañu qualifié qualifié na mhm. léegi ci moom la ñuy yaakaar ah? léegi ci moom la ñuy yaakaar quoi. pour ah, ah, c'est normal sax que ñu yaakaar ci moom. parce que déjà moom la ñu qualifié léegi léegi ci ski ski. waaw est-ce que fii. ski waaw waaw waaw. waaw tax may bëgg ski. est-ce que fii am na neige. <laughs> déedéet. ñu ngi prétendre qualifié dem eh, seeti benn sénégalais dem dem dem uti benn ab tubaab def ko sénégalais pour. Eh, di yaakaar ci moom qualification billahi. coach. waaw ah attends. Ah. tubaab doo doo xaaral rek. doo dégg léegi ngeen dégg fii qualification nga gis mu weex taal nekk nit bu weex waaw bu sax ne sénégalais. xanaa Ndiaye wala Diop la sax. Ah, ah, billahi yooyu yëpp sant ko ci. waaw est-ce que boobu fan lay oh, ah dama xam moo nga doo dégg gis nga Sénégal dañuy foofu. muy demee ay kanoy kayak ay nga discipline yooyu nga xam ne kenn du ko fi defee. est-ce que c'est pas un français bu nu abal rek. dañuy abal. am na fi. ah xaaral xaaral ba ci kanam. dañu ko abal dara. nit jeex wala gis nga li may wax da def ne ay caaxaan la mais gis nga loolu moo xew ci sunu sport bi mooy que ñun balaa ñuy mën a qualifier ñu dem abbi ay nit dañuy abbi ay nit mm-hmm. parce que condition yi nekk fii waa fi dafa am neige. bi ñun dañuy def kii xam nga loolu rek moom mooy yabaate rek. équipe bu football bi nag ñoom tamit qualifié. toog nañu. ah toog nañu. waaw basket bi mooy waaj dem <laughs> basket bi mois de juin lay dem. Mm-hmm. Euh, foofu gis nga foofu ku nga qualifié fa. dëgg-dëgg man je dis carrément duñu qualifié mais jarul ñuy yàq xaalis duñu qualifié. nañ rafet njort rek. non non mënuñu ko non non c'est que. Mm-hmm. ñi ñuy dajal euh, euh, poule non non c'est que xoolal ñi nekk ci basket bi. Mm-hmm. xam nañu li may wax. on n'a pas de chance pour se qualifier au jeu avec le basket. parce que poule bi ñu nekk la. poule bi ñu nekk la et puis pour qualifier dafa metti qualification. yombul dafa dafa am phase deuxième phase te ñi ngay dajal mun nga ci daje ak ay Canada. Canada du suñu moom Canada di taw ak États-Unis di di di basket ak États-Unis di ko indil ay kii ay jafe-jafe. Uh-huh. dégg ay ñooñu kon nag ñooñu biyee ko nag kii. nañ bañ a yàq xaalis toog xoolaat suñu bopp ngir yàlla ak yonent ba lenn moo baax ci sport Sénégal Macky Sall li ma koy ñaan mooy mu woo Matar Ba ne ko kaay yow toogal fi xam nga lan la. nañ leen xoolaat suñu bopp demuñu li ngeen gëm loo yëpp dara amu ci. biñ deex yi dara amu ci. mais est-ce que nekkuñu est-ce que dégguñu la ñu nekk di defaraat parce que fan yi gis naa que ñun mi ñu nekkee primaire euh, kii yooyu nga xam ne doon doon na am xaw ma nu mu tuddati sax nan lañ ko doon ooyee euh, école yi nga xam ne dañ daan football euh, ci ci seen biir UASSU waaw maa ngi gis que fan yi am na école yi ko tàmbaliwaat surtout au niveau de Rufisque xale yi ñu ngi dem ay football entre école est-ce que dégguñu la moo tax ñu indiwaat ko yow du woo nañ fii invité nañ fii kii géré UASSU du gis nga toj toj mu fi wax kenn xamul lan la fi wax uh-huh. bu fii lañ ko woo ma toog jàkkaarloog moom xamul sax bi mu pare. man waa ministère ñoo ma woo ñu ne ma wuy sama ndey rey nga ñu. Ah. xamul sax lu muy wax. nga bëgg a wax ay loo xam ne kii na non mais c'est que attends uy ma xam nga lan la. UAS yi moo doon jox doole sport au Sénégal. Mhm. léegi ni ñuy doxalee UAS yi moo bon. waaw. mais eh eh même sax l' état du Sénégal le gouvernement sénégalais. Mhm. UAS yi da ko doon jox ay tey jii Aminata Mbengue Ndiaye mais andalaise la Marème Faye Sall mu ngi ni di may dégg. andalaise la ci UAS la génne eh, Lamine Diack tey jii bu nekk kii UAS la génne eh, El Hadj Malick Sy Souris ku ñu jox qualification coupe du monde dem ba quart de finale la génne ñun ñëpp ay UAS lañ génne mm-hmm. mais léegi nag malheureusement mm-hmm. domaine boobu dañ kaa yàq. Mm-hmm. dañ fay sotti xaalis te kenn du ki ay tappale ay sàcc xaalis lañ fa nekkee. léegi d'ici d'ici été bi des nañu temps xam naa pour ñu am ay yeneen. Euh, euh, athlètes yu qualifié incha allah. invitation ñu invitation invitation dinañ ko am. invitation la ñuy am. dañuy saax na leen euh, daal lu la bu suñu a. desal feeñ am na lu Gomis wax léegi. dama ci ànd et je ma étayé ko par de l'histoire encore. Uh-huh. pour rationaliser. su la wóoree ne fii nga jëm doo fa am résultat taxawal xaar beneen yoon Abdou Diouf defoon na ko fi bi suñu équipe yi nekkee vraiment en situation de contre-performance dafa nekk bu benn équipe bokkati ci compétition internationale jusqu'à nouvel ordre mu suspendre toutes nos participation toute notre participation. gis nga bi ñu dellu si waatee. Mhm. mais on est en force. et c'est ça d'ailleurs qui a expliqué notre qualification. lii sax mun mun nañu ko def voilà kon nag maa ngi maa ngi dem ba Montréal Montréal laa jëm. Montréal Montréal. tey da nga jëm Damas. laa jëm. waaw Adama Ndaw moom laa jëm. Mhm. Euh, moom nga lay nuyu jëkkëram de. d'accord Adama Ndaw nuyu sa jëkkër. na xam ne tey jii man ak moom guerre 14